dal leen ak jàmm ci info 221 seen bi leen di jox xibaar yu wér te wóor abonné leen ngir dara bañ leen raw yaakaar daal dina tasati rek jëm ci ñooñu Ousmane Sonko gannaaw ba nga xamante ne nag coordonnateur bu Pastef Ayib Daffé doonoon na nag dem tey fa nga xamante ni mooy direction générale des élections ngir récupérer fichier parrainage bi waaye nag waa DGE dañoo lank ne duñ ko jox fichier parrainage motif bi maanaam euh, tey jii duñu recevoir nag kenn député bi nag waaye tamit Ayib Daffé nekk mandataire bu Ousmane Sonko fichier parrainage Ayib Daffé nag fa yéene woon dem niki tey jii nga xamante ne euh, ci alxamis bi mandataire bi jotoon a déplacé wu rek euh, dem foofu ca DGI ngir ñu jox ko nag fichier de parrainage ngir Ousmane Sonko waaye nag direction générale dañoo lànk ne duñ ko ko jox mu nekk ab xibaar goo xamante léegi lañ ko jot donte nag ki nga xamante ne mooy nag na lépp lu mën ngir rek ñu delluwaat Ousmane Sonko ci liste électorale yi ba taxoon nag sax ki nga xam ne mooy agent judiciaire de l'État recours ba mu ko defoon dafa mujj dellu ci ginnaaw loole nag juróon ab yaakaar ci ñi feccee ci Ousmane Sonko jàpp na rek ni euh, kii di mandataire bi yi ayib dafay bu fa demee rek dinañ ko remettre lu jëm ci fichier parrainage bi waaye mbir mi nañ ko doon yaakaaree demeewul noonu ndaxte xibaar yi léegi léegi la ko secrétaire chargé bu yor communication ex parti bile di Malick Ndiaye di ko fësal nee na mandataire espéré woon na nag pouvoir metre fin lu jëm ci loolee ñu dox ko teg loxoom lii di fichier parrainage bi ginnaaw ba nga xamante ni jot na ci essayé ñu lankal ko bu njëkk waa DG yi nag jotuñu doj nañu lank ni ñu jox Ousmane Sonko fichier de parrainage nag nekk loo xamante ne jamono ji ñu ngi koy daal di euh, xaymaay rek jëm ci radiation bi nga xamante ne defoon nañ ko euh, suite décision bi nga xamante ne justice dina ko jël jëmale ko ci Ousmane Sonko euh, jamono ji leen nag mbokk yéenam ko gën a xam mbir Ousmane Sonko xaw na tagatémbe ndaxte bu fekkee ba tey ji waa di di DGE dañoo lank ne duñu joxe nag fichier de parrainage bi ana lan nañu yaakaarati loo xamante ne dinañu mën a firnde ne Ousmane Sonko mi dina bokk ci liste électorale yi nga xamante ni présidentielle yi nga xamante ni moomee la ñu daal di dëgmal